mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk jullit yu tedd yi nuy bàyyi xel te di ñu seetaan ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziara eh, di fas yéene ànd ak yéen ni ñu ànd ak yéen ca suba ba léegi ci mboolem ziara yi nga xam ni moom la ñu doon amal eh, fii ci barab bu sell bi nga xam ni mooy eh, Thiéyène jolof Thiéyène Djolof nag bokk ci barab yi nga xam ni Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul def na fa lool képp koo xam ni xam nga ko dina la jaral nga bàyyi ko ci barab yu fasantikoo ngir ñëw sàkku si ci ngërëm yooyu nga xam ni dinañ ko yaakaar ci barab bii waaye am leneen lu ca dolli ko loo xam ni tey mën naa ni moo waral daje bi ba dëkk bi tey dal yi ak kër yi foo dem fekk mbooloo ma bari fa lool taxaw fa itam taxawaay bu am solo muy soxna Faty Issa Diop mi way juru Cheikh Ibrahima Faty borom Daarul Moxti looloo waral ginnaaw ba nu jëlee mboolem kàddu yi nga xam ni moo jiitu kàddu yi yëpp ñi ngi doog agsi nag ci kàddug borom bis bi doog agsi ci kàddug njabootug soxna faat yi Issa muy sëriñ Abbas mi nga xam ni moo fi Cheikh Ibrahima Faty borom Daarul Moxti mi nga xam ni soxna Faty sa Diop mii tëdd fii tey moo ko meññ jëmm ju tedd ji ñu jàkkaarloo nag di Cheikh Mamadou Bassir Mbacke moom Serigne Abdoul Khoudous mu yor kàddu mboolem njabootu borom Daarul Moxti gépp ta ni ñu ko faral di waxee mbokk sama mbokk yëpp di ko waxee mooy yàqul kàddu gi yàqalul borom kàddu gi kàddu gi waaye yàqalul kàddu gi ñi mu bokkal kàddu gi ma teg ca ni mës ta tëdd nelaw mukk daarul moxti fanaanoo soxla di sunuy tànk bokk na ci soxlay daarul moxti ak yoon wi ak lislaam ji mooy ñu dellu xamaat barab bii ca cosaan lan moo nu fi indi ak lan moo tax tey nu dajaloo fi ñi ngi teew ak Cheikh Mahamadoul Bassir Mbacké moom Serigne Abdoul Khoudous mi nga xam ni mooy wax ci kàddu njabootu borom daarul moxti yi nga xam ni tey mën naa ni fu ne la nit bàyyi ko ci biir réew mi ak bitim réew ñëw daje fii kon kàddoom gi mooy kàddu cant ak kàddu ngërëm mën naa ne ak kàddu yeewee gu jëm ci bépp taalibi boo xam ni teewoon nga wala nga am yéene teew laneen dolli ku ci nag di mbégte moo xam ni ak tawféex joo xam ni ñëpp xamaat nañu ni sëriñ bi barab bi ñor na ko lool ndax tey ñu ko fekk ci résidence sëriñ Abdul Xuddus Mbakke nga xam ne ba nuy ñëw ña ngi ko jëlee ci kër sëriñ Fadula sa jéey waaye ñor gu ko barab bi ñor njaboot gi fi ne ñor ko mu xam itam li ñu ko dénk ta fonk ko moo tax mu ñëw ànd ak njaboot gi ni ko fi ñëpp defee mu am fi kër defar ay bernde defar ay xéewal njaboot gi dal fa léegi lay jugee kër Serigne Fallou Serigne Abo wax ne nañ ko fekk fii ci résidence Serigne Abdou Khoudoss jëlee fa kàddu gi ndax ku ne xam na ni ku gis jataay bi xam ni màggal gi yokku na ndax njabootu Serigne Abdou Khoudoss gépp na nu daje fii ci njiitul Cheikh Mahamadoul Basir mu teewal fi kilifaam magam di Serigne Modou Awa Balla Mbacké moom Serigne Soubey Serigne Modou Awa Balla Mbacké moom Serigne Abdou Khoudoss Mbacké Serigne Mouhamadou Awa Balla moom Serigne Abdou Khoudoss Mbacké kon dañuy jël kàddu gi jébbal ko Cheikh Mamadou Bachir Mbacké mu indi kàddug njabootug sëriñ borom Darou moxti indi kàddug sëriñ baas jëmale ko ci njabootug sëriñ Fallou Sa Dieye ak mboolem njabootug borom Darou Mokhti yi nga xam ni teew nañu fa yëpp kon Mbacké Balla ñu jël kàddu gi jébbal la ko ñu ànd ceeg Lamp Fall euh, TV ak Touba Touba TV ak Baye Darou Média ak mbokk yi nga xam ni dinañ leen jox image incha allahu rabbi ñu ànd ceeg ñun ci ay yu fasanti ko sëriñ bi bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala maa ngi nuyu mbooloo mépp waay mën a nekk di sant yàlla sunu boroom bi mu nu mayee nu fekkewaat bis bi ci barab bi ndax bi nu fi dajee daaw ñaanoon nañ ko mu may nu nu fekkewaat ko bi mu nu ko mayee nag dinañ ko ci sant ndax ci coobaram rek la ko def ndax waru ko dalu di ko ñaanaatit mu may nu nu fekkewaat ko ay yooni yoon yu bare bari te lépp lu nu fi ñaan sunu boroom moom moom mu ko man mu nangu ko te aajo ju ñu fi ñaan itam mu faj ko mm, jàngoro yu ñu fi indaal itam mu faj ko mu saafara ko ginnaaw bi ma nuyoo ñoo ñëpp nag ni nga ko waxee nuyu leen ci tuuru Serigne Abbas bi nga xam ne moo di xalifatu Cheikh Ibrahim borom Daaru Muxti ak mbooleem njabootu borom Daaru Muxti ñoo ngi mën nañoo wax ndokkeel njabootu Serigne Mouhamadou Awa Balla ndax Serigne Fadilou Asta Dieye mi nga xam ne eh, moom la yàlla baaxee mu mu feeñal barab bi ci ndigalul way juróom sëriñ Mouhamed Awa Balla ndax xam nga yoonu murid moom euh, lépp lu ci jariñe ci ndigal lay tegu njëkke mhm. door a am njariñ ndax loolu mooy li ko sos sëriñ Fadilu ñaan ndigal sëriñ Mouhamed Awa Balla may ko ko ngir mu seet si barab bi dal cay am ndam mhm. ndax euh, lam ci am moo ko yombalal ndam la boo ko ci ci ni ko mën a gëmee ndax mhm. euh, ndigal moom bu jiitoo rek la ca des kanam la ca kanam lépp day yomb yàlla may ko ko kon njabootam gi ko fi nekk di ko dundal nam ko daan dundalee ñu ngi leen ciy ndokkeel di ndokkeel sëriñ Cheikh euh, Bombali moom sëriñ Madi Makki Madina mi nga xam ne moom it léegi lañ fa jóge te ñoom ñoo ko seqoon barab bi keroog bi barab bi feeñee ci sëriñ Fadilu ñuy dox di dox ba xam suuf si ni mu bindoo woon ci li nga xam ne moom la ñuy joxoon sëriñ tubaab bi mu fi nekkee sëriñ Fadilu ànd ko ak sëriñ Mbàkke Madina ba suuf si des ci loxo yi ñi mu war a des ci seen loxo mm. ànd di wéy diggante sëriñ euh, Mbàkke Madina ak sëriñ Fadilu Asta Dieye euh, sëriñ Mbàkke jiitu mu nekk diggante sëriñ Fadilu ak sëriñ Cheikh Bombali ñu di ko dundal loola nag di wéy ba tey loolu nag dafay li muy tekki rek mooy lépp ba tey borom daaru muuti la lépp soxna Faati Isa Jeey la mm. ndax euh, sëñ Mbàkke Madina ak sëriñ Fadilu Asta Jeey lépp soxna Faati Jeey la kon loolu moo tax dara génn ci e, fi mu war a jaar kon ñoom moom itam ñu ndokkeel ko ci e, ñaan yàlla sunu borom mu li nga xam ne moom la fiy taxawee ak li nga xam ne ñoom lañ fiy taxawee ñoom it njabootu Serigne Fadilou e, yàlla may leen ci ndam ñu ànd ko ak mboolem ñi nga xam ne ñoom ñoom la ñu bokkal borom Darou Mouhty bokk ak ñoom Serigne Touba ndax borom Darou Mouhty lépp Serigne Touba la ndax. du du du lu kenn di lambatu du lu kenn di abaati ku xool fi nga xam ne mm, fi la ko Sëriñ Tuuba tegoon ak li nga xam ne moom la ko liggéeyloo ak li nga xam ne moom la ko jëfloo ci nekkam ak ak ñàkk nekkam eh, di nga xam ne kon léppi Sëriñ Tuuba la te la cay gën a la ca gën a am solo itam amati ca solo te boo ko xoolee ci xel mu sel da nga ko gis mooy da gis ne li mu ko doon def loolu lépp ci nekkam ak ak ak ginnaaw ci biir tukki bi da ngay da ngay gis ne mbooleem ñi nga xam ne euh, euh, bokk nañu ak tubaa Touba Mamour Anta Sali wala ñu ay seex yoo xam ne euh, mel ne maami soxna si hmm. ñëpp dañoo nangul borom Daaru Muuti li nga xam ne moom la moom la moom la moom la ko Serigne Touba jox loolu mooy li gën a jafe maanaam ki nga xam ne mooy séddale séddale cër boo xam ne ñëpp nangu nañ la say cër boobu day lu day lu am solo te ñëpp ko ko nanguloon loolu nag moo xam ku wax nga dégg moo xam ku ku ku waxul waaye ñëpp nangul nañ ko ko ndax xam ne ne sëñ Touba du làmbatu sëñ Touba lu mu def noonu la loolu moo tax kon buñ fi nekkee nekkal fi njabootu euh, borom daaru moo tax ñëppi sëriñ Touba lañ fi nekkal te euh, mu nekk mu nekk euh, barab boo xam ne Eh, eh, dama wax fii léegi ma ne ma barab bi eh, nanguk nanguk sunu borom moo moo moo lal barab bi nanguk sunu borom moo indi bis bi nanguk sunu borom mooy Serigne Touba li mu doon liggéeyal boromam bi nga xamee ne tubaab bi jël na ko te xam ne dañu ko tooñ jotewuñu moom dara bokkuñu lu ñu gëm bokkuñu fu ñu jëm bokkuñu lu ñu gis bokkuñu aw doxin dañ koo tooñ fekk na moom la muy def déggoo na ko ak boroomam waaye loola lépp ba mu koy def nangul ko ko sunu borom nangu moo tax mu jaarale ko ci ba mu ko jëlee ba mu ba mu ko bi mu bi fi Maam Mor Anta Sali jógee mu mu jógee Mbacke Kajoor jaar Mbacke Bawol dem Daaru Salaam ñëw Touba dem Mbacke Bari door fa ñu jël ko faa jëlee yóbbu ko ci géej gi waaye loola lépp boobu li mu doon wut ci boromam mooy lii mooy lan mooy yëkkati lislaam joo xam ne duutu daanu ba mukk te li tax lislaam joo xam ne duutu daanu ba mukk mooy euh, yoon wi mu ja fi mu jaarale l'islam nga xam ne yeesalaat l'islam la képp ku ciy jaar ku nekk waxtu wu ne faw ngay am ngërëmul sa borom fokk nga am diine joo xam ne diine ju sell lay doon yoon wi sëriñ bi xàll ku ciy jaar ku nekk faw nga am ak diinul xaalis faw am diine joo xam ne ji dara du ko rax bu fekkee ne jaar nga fi sëñ bi rëdd faw nga am loolu loolu loolu la doon wut nag loolu kon moo tax euh, nangu sunu borom moo waral barab bii ndax biñ ko fi indi mu jafe-jafe goo xam ne te lu nekk booba euh, colonialiste yi jaral na leen ko mm-hmm. seen man-man ju nekk am nañ ko lii nga gis ni man ko léegi ci jamono Euh, booba mënoon nañ ko booba yëf yee yëf yee dolli ko rek gën a soppi ko aw doxalin waaye ku ñu bëgg a xam ci yow dara man koo xam ku ñu bëgg a man ci yow dara man ko waaye defin yi moo doon wuute waaye loolu la fi nekkoon moo fi nekk ba léegi loole lépp ñu jaar caag moom yooyu tëréewul euh, biñ ko indee fee it xam na ne moom boobu ba tey ci liggéeyul liggéeyu euh, sunu borom la nekk ak y ak ak yeesa diine lislaam moo tax keroog bi muy xëyee ci barab bii nu nekk tey fii mooy daaru mooy daarul xuddus fi la xëyee dellu njaareem boobu mooy mooy fi mu doon wax na ramu masiri ila Jurbel la daal la sasi boobu fii lañ ko jëlee ngir yóbbu ko yóbbu ko njaareem waaye mu ne li ñu jàpp ne ñi ngi koy jëlee ci yéen jàpp ne ñi ngi koy yóbbu njaareem suñu xamoon mbóot mi ci nekk dañ ko fi far bàyyi ndax eh, yóbbu nañ ko njaareem dafa woon ne foofu moom lu leen fa neex mën nañ ko faa def ndax jege na tubaab yi jege na ay yàqukaay te mënuñu ci loolu dara te fii ñu defoon ne buñ ko fi bàyyee it nee na leen gis nga ko tey ni mu mel ndax mbirum sunu borom noonu la sunu borom lu mu xas ba tëral rek dara mënu koo dindi lu mu ne mooy am mooy am lu mu ne du am du am loola moom ca la tegoon euh, bëtam te loolu mooy mooy mooy doon ab liggéeyam boo xam ne moom la war loon digganteem ak boromam. kon nangu jëf moo waral barab bi nangu jëf moo waral bis bi ci soxna Fatou Issa Diop ndax lu mu jëfal sëriñ bi ba tax sëriñ bi wax ko la mu ko wax denc ab secret ci moom secret bi mu denc ci moom mooy keroog bi nga xamee ne ñenn ñi wax nañ ne. Euh, naxti ndaw yoo fii joge ci réew mi ñeneen ñi nee ñu tubaab yee ko defal seen bopp ak lu ci mën a xew lu nekk am nañu juróomi yoo xam ne kenn xamul ci sëñ Tuubaa dara kenn tane wala ci ñu ne nag nekkatul ko ku bari mën na koo gëm juróomi at yoo xam ne xamoo déggoo gisoo lu ca bokk ñu ne la nekkatul loolu euh, war nga ko mën a gëm moom nag mu ne gëmu ko ndax am na lu mu ko waxoon li mu ko waxoon ñu wax ko waxati ko ñu bari wax nañ ko ñu bari wax nañ ko mooy moo ma ne woon maa lay dugal ci suuf te maa ngi ci kaw suuf te gëm naa ne la wax dana am am na mbokk mu baax moo xam ne mii ku jege Serigne Touba te xam ne moom loolu da koo gëm téye ko te yoo xam ne dara mënu ko caa yëngal muy Serigne Moustapha moom Serigne Salih in joxo na moom kaamil ma indaale ko tey ne man naa ko ko dugalal ci barab bu soxna si kooku lam lam ne ma maa ngi ci kaw suuf moo may dugal ci biir suuf ka gëm loole nga xam ne lool kon loolu dafa am lu jafe loo xam ne gëm-gëm boobu ak nangu googe moo waral bis bi kon nangu sëriñ bi moo waral barab bi nangu soxna si moo waral bis bi kon mboolem li ñu fi def lépp dañuy ñaan yàlla sunu war mooy mu nangul nu bu nu nangulee dugal ko ci biir nangu yooyu rek suñu mbir yëpp day baax lu fi waaye jëf def ko ngir ngir e, bégale ko ñi fi nekk e, nekk njaboot gi nga xam ne e, booba léegi ci loolu lañ nekk di di di bégal ñi fi nekk xam naa ne lu nekk moom manees na ko wax waaye murit moom du bokk ci mukk ñu doon wax na wala mu nekk nu temul miskin loolu moom murit du ci dugg ñañ doon wax naan lu leen daal ñu ne dañ daawul jox kenn mu lekk loolu moom du dal murit moom kon yàlla na leen yàlla gën a barkeelal bu baax te kenn ku ci nekk lam ca def mu gën ko mu gën koo ëppal la ca des mooy e, njaboot gaa ngi nii ñëpp ni nga ko waxee njaboot kër Sëñ Abdou Khoudoss e, njabootu borom Daaru Mooti waa kër sëñ Abbas ñëw nañu góor ak jigéen gis nga leen e, kon mbir mi sëriñ Mouhamed Awa Balla ni mu jiitoo ci njabootu borom Daaru Muti ni ñu nangale woon borom Daaru Muti ci nekku sëriñ Touba noonu la njabootu borom Daaru Muti nangule sëñ Mouhamed Awa Balla ndax da leen ko delloo woon kenn ku ci nekk jox na la ko kon moo tax lu jóge ci moom lu nekk faw nii rek lay mën a mel te loolu dara mënu koo dindi li li li li ñu li ci des moom mooy e, Serigne Ibrahima Diop almachar yi e, dafa waxoon ne dafa waxoon ne e, maali maali li Baxdaad sawxun laa wala Faas yi mu ne aw ma benn bëgg-bëgg ci dem Baxdaad wala Faas laakin biir aw yaa jolof xat bentu an Faas yi maanaam jolof rek laa gis gisuma leneen moo ma jaral jaay sama bakkan ñu ne ko fuy jolof mu ne xaytul xadimu tawa mooy fa sëriñ Touba nekkoon te toog fa lu yàgg xaysul muridu xawa sirran yu tax taxiruhu min kulli adnaasi mu ne mooy fi sëriñ Touba nekkoon toog fa di fa jaamul boroomam nekk fa lam fa nekk mooy barab ba nga xam ne ceyeen boo ko xamul mooy fa murid ba amee mbóot moo xam ne moo koy laabal ci lépp tilim léegi nag foofu gaa yi jàng naxwu dañoo dañu nan jëfandikoo istixraar foofu foofu mooy mooy al jooju dañ koy jàppe nun murid yëpp rek bon ko ko bàyyee moom waaw al wala xaysul muridu la wax xaysul muridu xawa sirran yu taxiruhu min kulli adanaasi léegi murid boobu al jooju nañ ko def murid yëpp rek noonu ñu fexe ba bokk ci nga xam ne buñ fi jógee kenn ku ci doo yóbbaale bakkaar da nga da nga seet wicci te it sunu borom mën na ko xaysul xadimu sawa xaysul muridu xawa sirran yu taxiruhu min kulli adnaasi loolu la sëñ Ibrahima Diop almasari yi waxoon kon yàlla nu yàlla dugal ci al jooju nga xam ne euh, ñu jàngale nax wu ñoo koy wax ne dafa am al joo xam ne bu dikkee xeet ñoo ñëpp lay dugalaale ci biir kon nan nun nan ko jàppee noonu waxul xel insaanu daifa euh, yaakaar naa ne daal sunu xel mën naa dal ci ne li ñuy def ak li ñuy wut euh, dinañ ci am ngërëmul Serigne tuuba ndax li tax dinañ ci am ngërëmul Serigne Touba moo di Serigne Touba daraam da dul neen te ku ñëw ci barab bi gis ni mu ni mu bindoo da nga xam ne euh, keroog bi fi sëriñ Fadlu indee sëriñ euh, Mouhamed Awa Balla barab bi tàng lool ñaxe lool kenn xamut lu muy nuru euh, sëriñ Modou da leen wax ne leen dem leen rek lu yàgg-yàgg li am fépp dana fi am waaw sëriñ Modou moo leen ne keroog dem leen rek lu yàgg-yàgg lu am fépp dana fi am yàlla nan bokk ci ña koy amal nag te xam ne loola rek lan ciy xool ndax mbir yi moom bu fekkoon ne tey euh, fañ ko fañ ko sosoon fa la nekkoon rek du agsi fii ay nit ay ñëw di ko jàllale di jàllale di jàllale di jàllale ba kenn kenn joti ji kon kenn ku ci ne fa nga ci tollool dangay ñaan yàlla mu may la nga mën koo jàllale ba keneen mën caa joti yàlla nu yàlla boole ci ñi nga xam ne ñoo koy joti di sant njabootuk sëriñ Fadilou Assa Dieye ci taxawaay bi nga xam ne nangu nañ koo taxaw si ginnaaw way jur àndandoo ko ak njabootuk sëriñ Mamadou Awa Balla ci njiitul sëriñ Moustapha mu boole leen ak sëriñ euh, ak mbooleem ñi nga xam ne ñooy njabootuk sëriñ Modou waaye njabootuk borom Daaru Muxti gépp te boo ko xoolee itam boo daaree ci biir dëkk bi tey da nga gis ne eh, kër yi kër yoonu murit yëpp ñëpp ñëpp ñëpp wuy si nañ fi loolu mooy Serigne Touba Serigne Touba ñëpp la ci boole ñu dul murit sax Serigne Touba boole ne leen ci am na lettre bu mu bind borom Daaru Muxti boo xam ne Serigne Abdou Khoudoss day wax ne eh, li tax nga xam ne borom Daaru Muxti moo mën a denc mbóot diirub li ma nekk ak moom mosuma teg bët lettre boobu te ñu bari mosuñu koo teg bët ginnaaw bi mu fi jógee bi ñu seet ay yéeréem la door a boobu te lettre bi da caa wax ne ko ku gis lettre bi te dara doxul sa digganteeg moom sunu borom jëggal la fonk gum ko fonk moo tax mu ne ko euh, mu ne ko na xam ne itam ni may ni may ñaanale ki aju ci man di murit ni lay ñaanale ki gëm ajuwul ci man kon kooku du génnewul kenn ni may jéggalule ki aju ci man di murit ni lay jéggalule sunu borom keneen ki ajuwul ci man fonk gu mu fonk bi ak ak ak sori gu mu sori ci moom moo tax mu ne ku ko gis lettre bi bët ak bët sunu boroom jéggal la kon kon kooku eh, julit yëpp ñoo di njabootam ba tax na boo xoolee tey jii gis nga fi ñu bari ñoo xam ne wóor na leen ne gëstu topp sëriñ Touba ak ak ak ak wut ngërëm ak um, wut njariñ moo leen moo leen moo leen moo leen fi indi te doomu aadama nag moom fekkee ne ak ndof dugg la foo gis sa njariñ te man faa dem nag war nga faa dem te njariñ laa ngi fi waaw njariñ laa ngi fi te war nañ ko war nañ ko war a mën a toppatoo bu baax a yal na nu yàlla may nu fekk ko déwén yu bëree bëri te kenn ku ci nekk la lal ci lu baax ak li nga fas sunu borom àggale ko te yàlla yàggal Serigne Abbas ci sunu kanam ak njabootug borom daaru moo tax ñi mu ko bokkal ñëpp doom ak sër ak taalibe yëpp ni ko borom daaru daan waxee doomi xol ak doomi deret yi ak Serigne Mountakha mi nga xam ne moo jiite yoonu Serigne Touba yi te yàlla may ko moom it mu rafetal ko lool te yàlla may ko ci ak déggoo goo xam ne euh, gu kawe njort la ci niñ ko déggalee waaye nag da koo déggale woon ay kilifaam moo tax nit ñi déggale ko ko noonu ba tey day daal delluwaat ci leen waxoon ne euh, boo defee li nga war a def sunu borom delloo lu kawe sa njortu noonu rek lay lay demee noo ngi ñaan yàlla mu nangu sunu jëf yëpp te may nu fekk ko déwén yu bëgg du bare bari di baal àq ñëpp di baal àq ñëpp di euh, sant bu baax a baax di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.